ci dictionnaire ak Moussa Gueye gi dictionnaire Habib ba laaj na dictionnaire dictionnaire daw na génn ma ngay annière waa lii lu doon dictionnaire daw na ba génn géew bi dellu si waat da nga jël avertissement. Dictionnaire am na deux avertissement Moussa Gouye Gui arbitre bi sifflé waat na Dictionnaire moo ñëwoon ginnaaw Moussa Gouye Gui lañ nu jàkkaar lool Dictionnaire mbokk booy xool moo xaw su tuuti kii di Moussa Gouye gi Dictionnaire cokaas na léegi Dictionnaire musa Gouye gi eh Moussa Gouye daw na jël Dictionnaire jël na Dictionnaire lu mu koy def da koo bëgg a zongalee da laa sut wala da laa ëpp doole Moussa Gouye Gui dafa ndànk Moussa Gouye Gui dafa ndànk Dictionnaire ngay bëreel eh Moussa Gouye Gui fa mu jàpp soo ne jàpp na càggal na da koy zongalee wala lu mu koy def Moussa Gouye Gui ndànk Moussa Gouye Gui ngay bëre da koy daan. wala nu mu koy def da koy daan oh Moussa Gueye gee ngay bëree Moussa gi Dictionnaire est-ce que dégg daa waaw waaw Moussa Gueye gi daan na Dictionnaire Moussa gi bëree nga Moussa gi daan na Dictionnaire oh Moussa gi Moussa gi jël ba na.